mbokki internet yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci Touba Argentine TV seen mbokk Arona Cissé ci présentation bi ci wàllum caméra bi mbay sekk moom moo fa fare ci wàllum réalisation bi góor a Seck ñu fa yéene seq ak euh, entretien bu gàtt rek ak ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Lahad Diouf xasida Serigne Abdou Lahad Diouf xasida nag nekk na jëmm joo xam ne ci wàllu njàngum xasida dootuñ ko ci présenté ndax taxawaay bu jéggi dayoo la ci jot amal sëriñ bi ñu ngi lay dalal ci Touba Argentine TV di la wax. asalaamaaleykum. aouzu ah, billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli sëriñ Aroona ñu ngi lay delloo nuyoo ñu ngi nuyu mbooleem spectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan télé bii di Touba Argentine TV. di leen nuyu fenn fu fi waaye mën a nekk rek nuyoo bi lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Abdou xam naa ne ñu bari dañuy dégg sëñ Abdou Lahad Diouf sëñ Abdou Lahad nañ la Touba sëñ Abdou Lahad Diouf boo ñu doon wax sa cosaan. jërëjëf sëñ Aroona man maa ngi juddoo dëkk bu ñuy wax kawlax fa juddoo fa laa yaroo fa laa nekk naa fa ab diir itam doog a ñibbi si Touba. ci gàttal daal man Saalum Saalum la waa Kaolack laa fa juddoo fa laa yaroo waaye nag Touba dëkk moom. ci njàng. xanaa juddu rek fekk sunuy waajur ak sunuy mag di ko def ñu gis loolu xam xam ñu yar ñu ci loolu ñu topp leen ci loolu mu dëppoo gi tun bëgg-bëgg. waaw am na ay maam yu daan jàng am na ay waajur yu daan jàng sama baay daana jàng ay magam daanañ jàng ba sama yaay sax daana jàng xasida ginnaaw bi eh, da nga ci nga juddu maanaam gane àdduna laa bëgg a wax eh, fekk ci say waajur wala eh, ginnaaw bi yow nga ci tàbbi man de murid murid laa murid piir koo xamante ne bii ci waa ñaari waajur yëpp murid lanu ndax sama baay du ndaw du du xale sama bàyyi de la gane àdduna 1902 mhm. xam nga ku ko gane àdduna moom te moom ay magam nekkoon nañ ak sëñ bi Mbàkke Kajoor ay doomi baayam daan yëkkate xasida sama maam ji nga xam ne moo jur sama yaay ca mag ña la kon murit gi moom mën naa ne ñun doomi yoon wi lañ mosuñoo génn yoon wi ci benn benn anam doomi yoon wi lañ Euh, ci wàllu jàng ak jaaruwaay jot nañ laa jot nga jàng alxuraan ba sori ci loolu. 1979 laa dugg daara yu ñuy wax daara Baye Ibra Ñang muy magum tiijaan bu nekkoon ca koñ ba di ku baax moo ma dalal baax ginnaaw bi jàng naa ci ku ñuy wax sëriñ Guèye waaye nag maa ngi mujj ci ku ñuy wax Serigne Mëttin ci kër sëñ Maalum Diaw taalibi sëñ Basiiru la woon di ku baax moo ma jàngal li mujj même njàngum. xasida mi sax foofa laa tàmbalee njàngum kuréel di ko ànd ak samay moromi dongo ak samay xarit. ci wàllu air yi je pense que lu jiitu loolu kan nga mas a nekk ci ginnaaw. man sëñ Fallou Gàmmu ak jàngkati Kaolack rek ak samay mag ndax xam nga nee naa ñun suñ kër ci kawlax mën naa ne sees sees sees xaw ma nu ko nu ko tubaab di wax seesu seesu daara daayira la waaw daara la ay jàngkati xasida dañoo jaxasoo woon ak samay mag di fa ñëw. Mm, ma gis leen topp leen bëgg leen di roy ci ñoom waaye sëñ Fallou Gàmm nag moom laa ci gën a féeteel moom waa donc donc sa air yi ngay jàng mu neex lool yaa ko créé wala am na ñu nga xam ne je pense que air yi sëñ Fallou Gàmm la woon waaw baatu baatu créé moom am na lu ma ci yàlla may waaw waaw sos ak ak fent ak modifi modification waaw mën ngaa sos mën a fent mën a modifier daal. waaw ah, sax laa gën a jekku fi mu ne bu ma yàlla xiiree ci ma ma ma bëgg daaju kenn rek ku mën a doon ma bëgg ko rek day fekk ma yëg ni lii man mën naa ko modifier ba man ci am sama yoonu bopp. suñu la daal ci baas nii jékki-jékki rek eh, xool ci jànkat yi wala mag ñi kenn rek daal daal koy roy maanaam mu xaw a niróo moom. li ëpp nag ci ci lu may lu ma loolu di dikkale mooy ci weetaay. moo tax ma ñeme wéetaay man ñaari bu ma tukkee nii wala ma wéet wala ma nekk ci àll wala dara damay xalaat ci ci li ma nekk muy njàng mi dama ci xalaat xalaat yooyu nag moo may jural dara léeg-léeg sax ma jël comme noonu nga ko waxee bandu kenn mën naa bañ a doon sax ab jànkat mën naa doon sax koo xamante ne bii ne xëy na kuy waxtaan la rek waaye déglu ko rek suñ borom inspiré ma am lu ma ci jëlee ba fent ci daaj loolu daf ndikkal na ma ci lu bari. njëkk a génne mu siiw ban la. daaj bi ma njëkk a jàng mu siiw bu ma ko fàttalikoo daaju Baay Jibril Toob la bi mu doon wax yaa saydi yaa rasulallah yaa sanadi loolu ñi ma ñi xam Kaolack xam démb ja xam nañ loolu waaye nag band bi bi nga xam ne moo ma siiwal moom jaxase maa ak ba ma am lanteeg ñoom mooy alaaman daaj bi ma daan jàng alaaman njàngum aw la waaw loolu loolu daaj boobu moo ma jaxaseeg moo ma booleeg waa kër sëñ Tuubaa yi ko ci sëñ ak sëñ Modou Abdou Wadoot ba ci sëñ Alaaji moom sëñ Abdou Wadoot maa ngi leen di ñaanal yàlla yàggal leen fi te may leen ak wér. macha mm. allah mm. sëñ Abdou Lahad àndal waxtaan ci télévision Touba Argentine TV ñu seq ak moom benn entretien ci leen ci parcours am ci li nga xam ne moom moo ay jaar-jaaram dégg nga ni mu ko waxee mu am parcours bu riche sëñ Abdou Lahad ci wàllu njàngum xasida mi nekkoon nekk nga ci koo xam ne euh, maanaam référence nga ci euh, modèle nga ci euh, sa baat mu neex kenn nattabliwu ko macha allah ñu baree bare ñooy safoo sam njàng jamono ji sëñ Abdou Lahad Diouf dafa dafa dafa teggi tànkam wala léegi dégg nañ sax ñu ne am nga daare alxuraan joo xam ne sos nga ko ndax léegi da nga bëgg maanaam xam ne nag liñ naan. Euh, ndungu bu sàkkee ndungu ling ni ko olof di waxee maanaam tey sëñ Abdoulaat bu demee nekk ci njàng mi ba am euh, ay sëñ Abdoulaat yi yu génnee ci moom dem ba njabootu boppam di ko def macha allah di jàng muy neex ndax looloo sax sëñ Abdoulaat teggi tànkam jublu ci daara jooju wala. jërëjëf bu ma la koy tënkal daal mooy bëgg lu gën a baax rek bëgg lu gën a baax ndax maa ngi fàttaliku ci ginnaaw bi bi fi. Euh, nguur nguuru Ablaye Wade nekkee am na benn sommet islamique bu ñu doon def dañ doon jël ay këri diine doon waajal lu mel ne benn spectacle ñuy xool ci këri diine yi fenn fu ne ñu tànn fa benn jàngkat bi ñëwee ci yoonu murit yàlla dogal ña toogoon di déglu njàng ma ñu jukki sama njàng ñu tànn ma boole ma ci loolu loolu nag soññee la ci man bi ci topp mooy bi ma repéré woo ci kenn ku ñuy wax menn mag moo xam ne daana am lu mu daan def lu mel ni daan tëgg ma gis mu jàngal ñu bari tëgg ba ñu bari mën nañ tëgg ja ba gis naa sax ay nit ñu ñu weex ñoo xam ne moo leen jàngal tëgg yàlla na ko yàlla dolli yërmande xam naa ne du ma sañ a tudd turam waaye junj doy na ma gis ne kii kat lim nekk moom fexe na ba forme na ci ay nit ñoo xamante ni mën nañ koo wut ci loolu looloo ma inspiré ma itam ma ne man gannaaw njànguma xasida yóbbu na ma fu ne defal na ma teraanga bu ne kon lenn rek laa mën a def mooy fexe man tam créer loo xam ne danaa ci tàggat ñi ñi ma ñi ñi ma nangul ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu dégg dégg ma te nangul ma ba loola mën a nekk loo xam ne day wéy ëllëg ndax nit tey rek la xam ëllëg moom yàlla rek moo ko xam te itam fexe ba créer loo xam ne ëllëg dafay des dafa dafa bokk ci ci ci ci ci li am solo daal li ëpp solo ci ci ci liggéey lislaam kon ci gàttal loolu daal moo ma inspiré ci ma taxawal daara daara ji nag daara moderne la dañuy jàng alxuraan incha allah di jàng di jàng ay daaj di forme ay ndaw ci lu bari ba ci wàllu njàngin mi wàllu daaj wàllu baat wàllu toogin comportement yooyu yëpp. kon daara rek di njàngu alxuraan mi mais ba ci xaside yi ak daaj bi ak yooyu yëpp waaw xam nga xaside yi dañ koo war a dañ koo war a xoolaat jàngaat ko bu baax góor góorlu ci bu baax ndax maa ngi maa ngi maa ngi waxtaan a génn kilifa bu yàggul mu naan ma ndeysaan dafa am njàng moom doon déglu dégg ku naan sëñ sëñ Fallou sax la tudd daal sëñ Fallou sëñ fàllu laatastar yi. xam nga laata sëñ Fallou Mbacke laatas tari duniyaa bi oxra yaa fataa xam nga loolu day na waar tudd sëñ Fallou ba noppi ne laatas tari bayit woow nga xam ne daa am daa am dafa mel ne ñi dégg arab daal danañ xam li may wax kon loolu ñàkk xam moo ko waral am ngeen ci responsabilité yéen jàngkat yu mag yi nga xam ne tey euh, macha allah euh, xam ngeen lu mel noonu kon jaadu na comme li nga def nii euh, di ko xamal ñi nga xam ne it bëgg nañ bëgg nañ xasida yi waaye xamuñu. waaw man de moom xam naa ne sama bopp man na maa waxal sama bopp te it xam naa li ci man jàpp naa ne moo nekk ci ñëpp waaye nag sama bopp laa sañ a waxal man moom li ma bëgg te gëm ko mooy nu mu gën a selle nu mu gën a baaxee nu mu gën a tegoo ci yoon noonu laa ko bëggee maa ngi dox nag di ci jëm di ci ñaan yàlla mu gàttandul ma ci ci barkeb sëñ bi ndax bu ma sañoon xalifa général de Mouride day toog. ma toog nii ak sama groupe di jàng xasida te danañ sàmmonteeg araf yeeg yëpp mu di ñu déglu wala tey jii mu amoon tey ay gan ñoo xamante ne bi na xëy na ñooñu dañoo bëgg njàng mi wala dara ñu woo mën a jàng njàng moo xamante ne bii ne daray caaxaan wala daray tappale wala lépp leen loo xamante ne bii ne dëppoowut ak xasida yi du ca ne. ndax am xalif général des mourides boo fi mas tombeel jàngal ko. waaw xam nga xalifa général moom moom am na ndax sëñ Saaliw yàlla na yàlla yokk ay leeram jàngal naa ko fii ci këram waaye xam nga ki ma yàlla boole loon ma am taw féexe ànd ak moom at yu bari muy Cheikh Mahamadul Mourtada mu daan ma jàngaloo di ma dimbali maanaam formé ma samp ma ñaanal ma suturaal ma aar ma ci lépp yàlla ma ko yàlla fayal mu daan ma jàngaloo ay band ma jàngaloo ay bis léeg-léeg ma dégg ko fenn fekk ko fa léeg-léeg muy tukki yóbbu ma fenn may jàng mook doomam ju baax ji sëñ maam Mor moom it di ma jàngaloo Bambey ma jàngaloo dakaar jàngaloo na ma fi dakaar benn laylatu xadr ñooñu ak ku mel ne sëñ Moustapha Xasaayit euh, loolu doy na sëkk waaw alaaji baara itam tubaarkàlla yàlla boole woon na ak moom mu daan ma jàngaloo xasida ñoom daal njabootu sëñ Tuubaa gi moom tubaarkàlla. wax nga ko sànq sax Cheikh Mouhamadul Mourtada ànd ngeen ba tàyyi tukki mu mel ni euh, taalibe yi nekk bitim réew ñu bari euh, ñàkkul amoon nañ ci yow yéene gee ci aju gannaaw bi fi sëriñ bi jógee tukki yooyu ndax mi ngi am ba léegi yaa ngi koy amal euh, walla boog bu fekkee amul lan nga jàpp ne mooy gàllankoor bi. man awma benn gàllankoor ci tukki. benn gàllankoor ndax tubaab yi nga xam ne ñoo moom seeni ambassade di may seeni visa boo dugalee la nga leen wax ne moo tax ngay ñaan visa boo sàmmoon teeg loolu boo bëggaatee dañ lay may. Mm, yàlla defal na ma taw feex fu ma daan ba ci kër yi ma daan dal sax ci tukki fu ma musaana dal wàcc fa bu ma demee foofa laay foofa laay wàccaat ci biir loolu maa ngi ciy profité di di nuyu waa New York. di nuyu euh, sëñ Cheikh Omar mi may dalal ci New York ak sëñ Papa Kane ma jaara waaye di siyaare soxna astu nag bu baax baax astu faal moom lay dal këram muy koo xam ne daanaka am néeg laa fa am waxuma la man sax waaye ku àndal bu mu ñëwee da dal euh, aw ma jafe-jafe ci loolu man fu ma bëgg dem rek. kon tournée yi donc donc na Argentine tamit ñu ngi lay seetaan. waaw incha allah Argentine moom yàgg naa yàgg naa waaj. maa ngi ñaanal masaar ku ñu wax Massar Ba yàlla yar yàlla yërëm ko jamono yi mu fiy nekk mook sëñ sëñ Cheikh Mati lay moom sëñ Abdou Aziz amoon nañ yéene ca jamono yooyu mu ñëw fa xëy na nag yàlla dogalagu ko waaye moom incha allah ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ñu ngi waajal tournée yi waaye lu mu mën a doon ñun benn bëgg-bëgg ci jamono yi ñu toll nii daal suñu aaroona moom laa benn projet laa am yàlla xam na ne danaa am sax dara war koo faje samay soxla wala ma am loo xam ne lu lu war a mën a jël xaalis la waaye dama ciy naye def xaalis damay jàpp ne man bu ma amee lu jar tonn ciment rek ci daara ji laa ko war a yóbbu man benn euh, tabax yee yëggagul waaw maa ngi dox rek ndànk ndànk di dox ndànk ndànk yàlla mi ngi may suturaal nag ndax mi ngi sori maa ngi am di ci def nit ñu baax ñi ñu ngi ma ciy fekk ma di ca def ndax daara ji projet bi ni ma ko bëggee dana dana yaatoo yaatu na ndax gudd guddee na vingt vingt vingt huit ci biir yaatoo na vingt loolu nag dama dul xam ci xayma waaye maa ngi. Touba Argentine TV danañ fa ñëw def fa benn grand reportage génn daara ji wane réalisation yi waxtaan ak yow ci mébét yu am solo yi nga xam ne am na fa loolu incha allah euh, dañ ko waajal ak yow xam naa ñaari point yi ñuy jeexale rek. Euh, bokk na ci euh, génn nga ay son ndax Sëñ Abdou Lahad génn na ay clip ndax mel na ni jàngkat yu bari farataaluñu ay clip télévision yi yooyu sax suñu bëggee teg seen ay jàng la plupart dañuy gis ñu ñu ñu jël njàng yi ñuy jàng ci ci baas yeeg yooyu ku mel ni Mbaye Seck suñu caméraman filmer leen ko mais ni ko yeneen ñi ne ñeneen ñi ne ci geneen wàll yi ñu koy defee fonk ay clip loolu di ko génne mel na ni jàngkat yu bëree bëri dese nañ ko fonk ndax Sëñ Abdou laat moom jot naa génn ay clip même bu fekkee génnewu ko woon ci jamono ji ndax nekk na ci xelam. waaw man de xanaa mbirum clip bokk naa ci jànkat yi ko njëkk a def ndax jamonoy RTS boobu télévision yi ngay wax ni bari amul nag jàngoon naa fi benn Assirou Mahal Abrar boo xam ne dañ koo defal clip di ko teg RTS waaye xam naa nag yi nga wax nii lépp mu ngi aju ci biir daara ji daara ji am naa ay programme ci njàng mi yoo xamante ne bii ne incha allah bu daara ji taxawee. yooyu yëpp ak yeneen sax yoo xam ne nit ñi xalaatuñ ko sax te saa su ne maa ngi ciy xalaat incha allah maa ngi sàkku daal li ma gën a sàkku daal mooy ku ma ñaanal yàlla projet bii nga xam ne moo ma ñor ma nekk ci am ci ndigalul sëñ Muntaxa mu jàppale ma ci euh, njabootam gépp mu woo leen ñu tegal ma xeer ñaanal ma ci mu moo ci njëkk a def alalam dama nañ ma ñaanal ma àggale ko ci ni ma ko bëggee la ma fa Niger dem te mu jëm ci ndaw ñi loolu yàlla dimbali ma ba ma defal ko sama bopp bu ma ko kenn defal wala boo ku ci am yéene dañ koy ànd defandoo rek barki borom Tuubaa bu ko defee yi ngay wax yépp a ngi ci biir incha allah sëriñ Lahad Diouf kon ñu ngi lay sant di la gërëm di bàyyi rek nga tëj li nga xam ne moom mooy jataay bi xanaa di la sant bu baax nag di la gërëm bu baax di siyaare sëñ a sekk mu baax mii nga àndal ak sa caméraman bu sawar bi di leen ñaanal télévision bi gën a yaatu ci àdduna bi ñu dema dem ba fépp fu ñuy dégg ab télévision rek ñu dégg fa télé bi mbaa foo ko gën a kawee ci barki borom Tuubaa jërëjëf jërë jëf mbokk yi nga xam ne yéen a doon seetaan ci Touba Argentine TV ñi ngi àndoon ak Serigne Abdou Lahad Diouf xasida bu Kaolack waaye bu tuubaa nekk it jàngalekatu alxuraanul karim nekk jëmm ju baax joo xam ne dama koy faral di wax nit boo amee ay principe dañ lay jaawaleek ku naqari deret wala ko metti fekk ak dëggu moo ko waral donc nag suñu borom def ci moom mu nekk nit ku dëggu wax dëgg yàlla macha allah waaye nekk ku bëgg Serigne Touba Cheikhul Khadim bëgg xaside yi ba tax na ma koy sol ci dëndub ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi dégg nga ko daara ju am solo jooju nga xam ne taxawal na ko foofu ci janatu ak mébét yu am solo yi nga xam ne am na ko fa kon yaakaar naa ne du ñàkk ñenn ñoo xam ne ay defkati lu baax lañ Euh, te sëriñ Abdou lu mu néew néew wax dëgg yàlla am na lu mu liggéeyal yoon wi ci xaside yi kon jàpp naa ne euh, ñi nga xam ne it euh, sunu borom dénk na leen am koom te lu baax rek ñor leen kon war nañu mën a ñëw jàpp ci daaray sëriñ Abdou Lahad Diouf jooju nga xam ne taxawal na ko ci jànnatul maxwa muy daaray alxuraanul karim waaye nekk ëttub tedd ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim ndax sëriñ Touba amul woon lu dul alxuraan. kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñi nga xam ne aussi ñoo ñu doon seetaan di gërëm sama caméraman bi di mbay sekk sama réalisateur bi góor a sekk kon nag di gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñu doon bàyyi xel di gërëm sëriñ Abdou Lahad Diouf mi ñu seqaloon jataay bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo koy jàppale ci liggéey bi mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen